dañuy am mbégte saay su nekk janoog yéen fii nga xam ne mooy Salam Actu comme ni ñu koy defee saay su nekk tey nag ñu ñëw ak yéen ci seen émission bi nga xam ne nee naa la mooy hmm, ëttu Saalum thème bi di néegu sëy ñu fas yéene see waxtaan am lu bëri li nga xam ne am na ñu ko xamul waaye am lu bëri li nga xam ne nit ñi dañ koo réeré mbir ba tax na du ma ci wet benn yoon tey ma ànd ceeg ñi nga xam ne macha allah ci télé bi la ñu dëkk waaye ku leen di xam na leen. si seen xarañte hmm? sama sama droite noonu comme noonu lañ koy waxee xaw ma sama gauche maa ngi ci ànd ak Fatima Niang euh, sama droite ak sama gauche comme ni ñu koy waxee maa ngi ci ànd ak Ousmane ba tey dama leen bàyyi nuyoo ñu daal di dugg ak yéen ci thème bi ndax nee naa la lépp fii lay xewee ci Saloum Actu Fatima ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi lay fay sama naataango bi nga xam ne moom laa toogoon tey ci Saloum ak nee naa leen dër seet nañ di waxtaani li nga xam ne mooy wareefu néegu sëy néegu sëy nag li mu ëmb dafa bari te chaque jour nee naa leen nit ñi ñu ngi réer ci baree baree bari ci waxtaan yi communication sëy yi ñu ngi ci am luñ ciy réer danaa dama nuyoo sama coofal gi nga xam ne fi laa dëkk damay daal di jàll nuyu sama sëriñ sama wasila Cheikh Mouhamed Maay bi ma jóge foofu daal di nuyu sama imam Mubarak daal di nuyu képp koo xam ne ñu ngi ñuy seetaan di ñu safoo di ñu faale ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal bi ma génn foofu damay jaar fi nga xam ne mooy hôpitaux yi seet malade yi fa nekk yal na leen yàlla fëgg seen bopp may leen wér ak wérle daal di jaar ci prison yi seet ñi fa nekk ñoom yal na leen yàlla génnee ci li ñu nekk ba delloo war leen ci seen sago surtout nag waa jàngu bi ñoom it duñ leen fàtte ñee naa leen télé bi ku ko dégg ku nekk xamal ne yaa ngi ci ñëpp nañ ci gis seen bopp xam ne ndaw mu ndaw Kaolack ñoo fi nekk parce que ne di waxtaan ak yéen loo xam ne rek nga ko teg ci table bi boo jàddee ñëw fekkuñ fi dinañ la ci defal lépp li ñu ci bëgg kon daal di may bàyyi Ousmane moom mi mu daal di nuyoo merci beaucoup Fatima Niane nuyoo bi am na solo bu wërëwërë. dégg naa lépp fii lay xewee ci Saloum Actu Ousmane nuyu nañ la. waaw ñu lay fay ñu ngi lay fay bu baax. Mhm. waaye nuyu mbokk téléspectateur Actu yëpp. Mhm. nuyu samay ñaari waajur waaw. kontaan bu baax a baax Ousmane tey nee naa leen plateau bi du yomb parce que dañ fay am ñaari célibataire ak benn mari loolu lañ fi am ñu war a fas yéene li nga xam ne mooy néegu sëy Fatima ñu gis ne mm, néegu sëy fi mu ne dafa jaxasoo mhm. ba tax na mënuñoo waxtaanee lépp. waaye dañ ci comp ci loolu daal di ci am luñ ci waxtaanee as tuut mooy sëy yi nga xam ne direetul contrat trois mois yi xale yi dugg ci sëy tey suba ñu génn ci sëy ñu may leen ay milliards bu ñu duggee ci sëy même pas trois ñu am ñoo xam ne dañ leen doon may euh, dañ leen doon jox juste ñeente trace te ñu dee ci seen biir néegu sëy Fatima noo jàngatee loolu si jamono te ñi ma ko jàngatee rek mooy dama jàpp ni rek nit ñi seen xel yi ñoo réer mm-hmm. parce que boo demee fa ndox daan taa da fay fekk tepp tepp ba mhm. parce que dañ doon wax ne diw dafa bëgg jabar ñu ne ko dama nga seet sa doomu bàjjan mhm. ñu dem ba loolu léegi dañ cee génn ku nekk sa idée bokk ngay doxee mhm. ci mel ni Ousmane day gis benn xale bu jigéen liggs na rafet na taaru na macha allah sol lu ko neex mu gis ko rek bëggal ko boppam amul deux jours trois jours lay doon nga yenn yóbbul say waajur na ko mën di dama kaa bëgg jéemuñu contrôler ba xam ndax yaayam fan la dëkk wan fan la bokk dañuy dem ba dañuy obligé nag ah bëgg nga ko mu ne ah doomu nit ku baax la xamuñu ko ci ñoom xamuñ ci dara ñu ci xam taaru na rafet na wala ñu ne yaayam milliardaire la boo ko takkee dinañu teral Ousmane jël na xaalisam dugal ci calculé wut après sëy bi lan ban conséquence moo ci war a nekk moom dafay bëgg rek na sa à chaque fois rek na takk bu rombee ay morom ñu ne ko mooy sa jabar ji rafet na taar boobu moo leen di yóbbu ci li ñuy dugg yépp mais man dama ne jàpp ni jigéen taaram warta mën a góor ni góor ba tax mu jël ay milliardam def ndax nit ki boo koy takk war nga mun a xam fa mu bokk fu mu juddoo kan mooy yaayam kan mooy papaam ak kii fan la bokk parce que souvent doom bi nga xam ne moom nga war a jural sa sa jabar war ngaa xam doom ji deret gi fan la bokk mais léegi dañoo teggi loolu yi fi maam bàyyi woon ba léegi mi ngi fi parce que boo demee fa ndox daan taa danga fay fekk tepp tepp yi mag ñu njëkk ña dañ daan ne dama sa doomu bàjjan bi nga takku ko soo demee nga xool ca kër ga kenn ñoo naa yaay xool naa de mu ne koo bëgg ñu ne diw moom bëgg nga ko mu parce que deret bi day bokk deret bi dootu jaxasoo mais léegi xàmmeetuñu kenn kenn kenn ku nekk la neex ngay tànn mhm. sëy deux mois trois mois moo nekk ci suñu actualité bi fii ñu toll nii mhm. sëy bi da ngay gis koo xam ne nga yëkkati milliard may ko léegi koo ci yóbbul deux cent mille sax dafa lay xeeb naan la deux cent mille lan laa koy doyee deux cent mille matuma mbubu parce que kuñ ciy takk yaa ngi teg sa keesu valise ngay solo ko simili bu sa baali mais xalaatoo après yor bi yor bi tamit dafa am solo lool ci li ma yaakaar daal. mais tey bu ñu ne ñun rek bu ñu bàyyee suñu bopp jël suñuy façon yi nga xam ne suñu maam yi dañ ko def teggi nañ ko. suñuy jëfin rek la ñuy def ak suñu bëgg-bëgg bëgg-bëgg nag moo ñu sonal. tant que ñu ngi bëgg di am bëgg-bëgg ñun dañuy daal di tardé. kon ni nga waxee rek Ousmane moom dina am lu mu xalaat ci moromu góor ñi parce que góor dafay am lu muy taxawee ci biir kër. sama yaay nee na bu ma takk tàggoo ma ko mais loolu amatul léegi. Fane amatul. léegi comme ni fu ndox daan taa boo demee fekk fa tepp tepp mais dama naan tepp tepp sax amatu fa parce que réew mee toj Ousmane dégg nga li wax nee na góor ñi dañuy dañuy takk jigéen ngir taar takk ko ngir sa jabar jee moon ah. mais takk euh, takk euh, jabaru sa jabar moo takk jabaru gaay boo takkee ku mool jabaru gaay lay doon du ñëpp nag Ousmane lan la wax ci loolu ah en tout daal moom mhm. ay millions laa ko may ak ay yooyu deuxième la en tout cas daal yor bu rafet bi daal moo ëpp solo looy gis tey jii tamit xam nga rek jigéen ñi moom yaa ma gën a xam. mais jigéen ñi yaa ma gën a xam Ousmane souvent góor dina ko def du rek mo koy def. parce que da ngay romb parce que tamit dañuy jël tool yëpp teg waaw parce que jigéen ñi la. Uh-huh. man tey damay dem jënd sama diw xeesal xeesal ba weex tàll. Uh-huh. mel nu ma neex xamoo ci lu may dox xamoo ci wax. yow da naan ay rafet na de waaye xale bi tooy na xale bi tooy na moo sonal suñu suñu doom yi sonal nañu mm-hmm. nañ leen bàyyi li ñuy def dañu dem seetuwaat li fi maam bàyyi li fi maam bàyyi moo ëpp sens li fi maam bàyyi mm-hmm. sama doomu bàjjen mi ngi fi sama doomu nijaay mi ngi fi sama xaritu yaay kat kii sa xaritu yaay sa xarit la parce que sa xaritu yaay sa yaay am ta ku bon ànd naa ku baax gis nga doomam baax na nga dem dugg fa dem takki ko mais sëyu léegi nii lu yàlla xam doy na mm. sëy deux mois trois mois surtout nag ñun suñu kawlax gii nii amatul benn jigéen boo xam ne taxaw ne man damay sëy te yàlla rek tax tey sëy sa yàlla tax bu njëkk ba lañ ko doon déggee suñu yaay dañ doon toog ñu takkal leen morso mhm. dañuy xëy un bon jour leen diw de kañ ko takkaloon tey moom la ñuy takk luñ koy indi yére bu riis sax duñ ko gis li ñuy sol benn vax lañ leen di jox ñu sol jëndal nañ leen seen daal yi lay mu ngoo salon sax doo ko gis mais léegi yow da ngay gis buñ lay takk yaa nga yendu ca salon ba te suba ba ngoon jot yow yaa ngi toog ci salon te gën a mooy bu njëkk buñ la doon da ngay toog ci digg laa ba. waaw parce que mooy aada. loolu mooy aada bi ñu lay takk mu la fekk te salon ba ñu lay defal moo tax sëy diiratu. waaw ma jox la benn exemple foofu. Mm, sama yaay Dramé Kañ ma taa soose baram baram teen bu rëy bi bi mu sama sama sama mag bi taawam dafa jékki-jékki jógee Gàmbi sama taaw yaay ñëw ci kër gi sama ne ko suba dama lay may jëkkër. ci teg baat loolu la ci am. du ci teg baat suba dama lay may jëkkër mu may ko jëkkër bi mu toogee ba léegi bougé macha allah ñun ay rakam ñu gis ne tamit di nga xam ne toppul ci taaw sama yaay ba mu leen ne dama leen di may leen ne man du ma du ma diw maa xool ka ma nekk mu ma dem ma sëy loolu lañ koy wax moo taxit mu ngi nii tey eh, ñaari fan nga génn ñetti fan nga wuti maanaam pour juste wax na ne la ñu fi maam yi am solo te mu ngi fi ba tey mu war a dem am na ñoo xam ne bu nekkee cent pour cent quatre-vingt-dix-neuf pour cent yëpp topp nañu léegi aada bu bees aada bu bees bi mooy buñ la mayu un million bu bi dafay am dafay am fu ñu koy teg de. parce que un million bi dañ ko da nga joxe téléphone iPhone. 15 Pro Max waaw léegi iPhone est ce que damay laaj Ousmane am na njëgi iPhone. Eh, eh. Ousmane bu amul njëgi iPhone fan lay jëlee njëgi iPhone Ousmane bu amul chambre à fan la koy man góor bu takk jigéen ñi loolu la ñuy wax xale yi jigéen ñi loolu bu ma takk te joxuma chambre à mu ne dee tawaat mu ne du ma jot takk te ma pare lu or. Mm-hmm. mu ne ko sëba bi nga dem jënd sëpp cent cinquante mille na nekk ca suufu tànk ya mu def ko lëngër trente mhm. léegi yow kooku bu ko amut nga sàcc loo ko nañ leen delloo li fi maam bàyyi wala góor ñi di am naqar xol Ousmane ndax mënu ma laa jox un million teg ci iPhone 15 Pro Max teg ci chambre à buy jàng huit cent mille teg ci cheveux boo xam ne longueur trente la mu nga tolloo euh, quatre cent cinquante mille say dàll ñëwagul sa solu ñëwagul ma takk la indi ci kër gi te bu ma waxee nga teg ci baat waaw ah, moo waral fase di gaaw ak dóore parce que xol bee neex li mu def ba li jënd xaalis bi xamoo ko mu ñëw indi la ci kër gi pour nga seetlu nga koy yab. waaw ah, góor moom. Hmm. kàddu rek la am ci kër. dëgg la naa bu demee ba kàddu gi nekkatu fa moom. Hmm. dara nekku hmm. mais tey jii tamit yow sa borom kër xëy bàyyi la ci lal bi ngay nelaw mu xëy dem wuuti. dem wuuti ba kii ba ba affaire lépp mat. mu ñëw indil la léegi tey jii su waxee yow ko mënoo koo respect su waxee nga teg ci baax loolu tamit dafa nekkute di leen mm-hmm. tey yow koo xamante ne day xëy dem wóoti ñëw indil la loo soxla guddi ba bëccëg mu mu ngi ciy taxaw yaakaar naa ne kooku mën nga koo war a mën a respecté ba su waxee sax nga am loo ko seetaan tey yi tamit loolu neexut ci xol waaye nag kenn du foofu Ousmane. kenn du ñoom góor guy daw ba bi so. bu dee dawal borom jakarta bi. day xëy 7 heures. Mm-hmm. wala mu wàcc 7 heures sax dama koo xeeb. 6 mm-hmm. heures du matin dina ko fekk mu nga ca marché géej ba di ñàkkan. su ñëwee lu muy dajale as tuut day ut pot condamnéem di ko ca def kon moom bu xoolee ni mu def ba am war naa mun a xalaat ne man tey bu ma takkee jabar du ma teg lu ma manut jigéen bu la tegee loo manut Ousmane yow la neex man man maa lay takk man maa yor kàddu gi man maay def li ma neex mm. def lu ma neex bi nag du da ngay jël te jabar takk ko teg ko ca kër ga doo ko dundal mm. déedéet danaa la dundal dinaa la wodd parce que dama naan sëy du lu ñuy jël di bind livre livre say dëkk la yërëm yiir sutura mhm. léegi xale yi jëlatuñ condition boobu noonu sëy bi contrat la y a pas de maman y a xaj bi sain bi euh, xaj bi euh, man mhm. sama jëkkër waaw léegi nag yow buñ ne man jëkkër man chien bi ci biir kër gi waaye léegi garde mu sain ba mooy garde ñee ba de moom boo ñëwee moom moom boo ne salaamaaleykum bu la la woo nga daal di départ sëy bi yaay bokkut baay bokkut yow sël la léegi la mu bëgg soo ko defal ma la Ousmane man dal fi le sëy bi mana yam nga duggal tank lo mu ne la nak la ma waxon defo deg bi ci gor ñi la li tax mané ci gor ñi la jabar ne dina ko defal li te sa doole matewu ko yow da ngay sank sa bopp góor buy tak jabar nako ne dara sama ben grand frère daf ma musa woné ma faaw dama bëgg takki jabar ma ne ko ne ko aw mu ne ma nuy lool ma ne ko soo ko ne bu la bëggee di nga ko xam bu la bëggul dina xam parce que awma boko jigen bu bëggul xaaliss dina la na la seyel te yalla rek tax boo koy saytu nee naa leen nañuy delloo la maam indi woon la maam indi woon dañ naan booy takk solal sagar mm-hmm. bañ nañ ne dañ ne booy takk demal fajar nga xool jigéen ba boo ko fekkee muy baleelal yaayam di fompal yaayam di ko fëbeeral yaayam kooku mooy jigéen bu baax bi waaye léegi jigéenu mbedd ngay romb ah, waaw ma ne nañ leen delloo si ma ne nañ leen delloo si maam mm-hmm. maam da daan def bu xëyee doomam xale bi léegi koo ci ne demal nga baleel ma wala demal nga rootale ma dafay bañ. dama koy xoolee ci sama doom day nelaw ba midi mu jóg kooku dana lan la war a mën a liggéeyal yaayam nga gis gan ne salaamaaleykum ci kër gi gan gi xamoo lu ko indi. Mm-hmm. nga ne sa doom jox ma naan mu ne la yaay ci téléphone am di manipuler. Mm-hmm. waa léegi kooku kan moo koy tàgg. kenn léegi yow nga ma. andil ko sa yaay que kooku indi sa yaay naa sa yaay. Mm. ñëwee sa yaay bu ne ko lii mu ne may ma sama jàmm sa doomam a gis bëgg ma. doom jooju ki muy indil yaayam na ko xool parce que yi ëmb juróom-ñeenti weer dafa metti sooy indil sa yaay war nga ko mën a indil ku baax mhm. war nga ko mën a indil ku réglé war nga ko mën a indil ku koo xam ne nii muñkat la parce que yi ëmb dafa metti góor ñi tamit nañuy bàyyi na ëmb dafa metti surtout nag waajur bu jigéen bàyyi damay wax ne bàyyi ñépp la mhm. mais ndey ndeyu kenn la mhm. man su ma dee góor ne damaa bëgg a takkal sama yaay jabar dama koy takkal ku baax mu jël sa yaay di nabbi bi soo wanee ginnaaw mu bale loo sa yaay fomp loo sa yaay kooku booyoo boo nga moytu ko. man gis naa koo xam ne dafa ne Fatim mu ne ah ma ne ko li tax ma fase sama jabar dama ko bett ak li man ma façon bi muy def ak sama yaay ma ko li tax nga mu ne ma ndax dama koo nit dama wax gawma ko mais dama kaa ah, def na ko maa ngi xëy te xëyuwuma ma bàyyi ko ca kër ga ak moom bi mu dëlsee fekk yaay ja di boole néegam te moom heure bu ñu waxee mu a mooy baleel yaayam néegam yaayam di defaral boppam néeg mu bàyyi ba yaayam defa ba pare mu xoolaat lan la mu duggaat ca waañ ba dem defari ndékki te bu jëkkër ji liggéeyul dimanche beeg samedi moom mooy bale néegu goro bi moom mooy defaloo goro bi ki te bu fi jëkkër ji newul mu bàyyi ko mu koy defal bopp kooku ñu ne ko xam nga tax ma takk leen la ci kër gi mu ne ko déedéet mu ne ko sama yaay ndax sama yaay dafa sonn sama kër baay di ma defal lu ne di ñu boot di ñu nabbi nabbee di ñu nax neexal uh-huh. ba dara jotuñu tey ma yor sama taraangi gii kon tey du ma nangu personne ñëw ci biir kër gi di liggéeyloo sama yaay uh-huh. sama yaay nopp lu lay sama yaay ci kër bu sedd bi laa ko nattu bu néegam tëdd ci kaw lalam lekk bu baax fekk ko fa mais léegi ci xale yi lijjanteetuñu loolu da ngay ñëw sax sa yaay na la sama jabar lii la ma def sa jabar de lii la ma def nga mer yaay nag mu ngi ko supporté rek boo ko mën a supporté nga seet noo rek waaye yaay ma ëmb juróom-ñeenti weer supporté ba heure bi comme bu supporté te dina supporté mais nag nga supporté sa njaboot mu lay teg métit nga supporté sa goro mu teg métit yow kañ ngay jóge ci métit moo ma jaaxal nañ leen bàyyi xel te ñu seetaat suñu waajur yi li ñu sonn ci ñun ëmb juróom-ñeenti weer dafa metti loolu waaw sama mag ji Guèye Balla ak madame Khadija Alima koo def loolu mooy yoon. waaw parce que tey ñu bari ñu ngi ne ngi réere mbir. Mhm. réere mbir bi mooy am naa xaalis mën naa ko nee naa la foo dem takk fa joxe fa ay million mhm. waaw léegi yow kañ ngay sakkan la sa poste di sakkan. nga wàcc mu dem. Mhm. bu subaa nga dem takkaat joxe ay millions nga wàcc mu dem calculel ñaata million nga joxe ñoo wàcc mu dem. léeg-léeg nga wàcc ba wàcc ko gën ci am. Mhm. léeg-léeg nga bàyyi ba bàyyi sa wërsëg. Mhm. nañ leen delloo si xel te ñuy waxtaan ak suñu xol yi xol yi li may wax toujours tali bi xatul xol yi ñoo xat. kër yi tamit xatul xol yi ñoo xat. Mhm. njëkk bi ne ci biir kër gi na jàppale jabaru càmmiñam. waaye kii sëy si biir kër gi na jàppale ci këram. parce que jàppale jëkkëram jàppale boppam la. ëllëg say doom dañ leen di tagg sa yaay moo fi def lii fii kuñ fi tagg say maam fekk na say say teretu yaay nga ko royee. Jigen xëyub am étage jigen xëyub doomam jox ko billet mat jigen xëyub am taranga, la wax am tar lamu daj ba am taranga su lako ko yow nga ne dede lolu am mhm. kon goor ñom xale yu goor yi nañuy bàyyi bu ñuy tak set la len neex ñu dem takiko setal buki mu ñaaw ba nga xamne boko boo nit mu ree mhm. nga dal di defar ba mu baax jigen bo defar mu rafet jigen bo jël tay jii defar ko fi mu rafet léegi dañu dem ba xale jigen sax ba lañ xeesal deug la ma ngi ni tey nag tey boo tey boo ci gis tey noir ngay gis ca maam waa bi ndax li may wax ma ne njolee defar na jigéen ñi. dëgg la maam Ndiaye sabon yàq na jigéen ñi waaye defar na yit jigéen ñi. Mm-hmm. parce que am na jigéen ñoo xam ne judduwaale nañoo naturel bu maam Ndiaye jëlee seen i diw jox leen dañuy gën a yokk seen taar taar nag nit du ko da koy judduwaale waaye nit du ko jëli. Mm-hmm. yàlla da lay may taar nga àndaale ko fii. Mm-hmm. waaye soo ne man sama morom mel na lu la neex kon damay mel lu ma neex tey jabar Ousmane bu ñu ko takkee indi si kër Ousmane lu mu ko jox lu muy def dem wuti ji ko dem wuti ji ko kon ku ngeen di takk nee leen ko aw ma aw moo lay dimbale ci sëy bi moo lay dimbale ci ànd bi moo lay dimbale ci lépp da nga éviter ko xarit mm-hmm. soxlawuma xarit naa nekk sa xarit ak sama yaay soo mun ko def sax sama rakk xarit def ma xarit def sama yaay xarit xarit tas na réew sa jabar bu ne asalaamaaleykum dugg na kër yëpp nuyoo dem kër gu ko neex salaamaaleykum am na fa jàmm am na fa salaam bu xëyee am problème am dem fa dal nako man de dem sama jëkkër ji ni la ma def mu ne ay su doon man la ay way su doon man la tas na rew mi bu doon mom du ko def du ko def ndax am histoire bu ma sama mam ma sa nettali neena ndaw si da ñew fekk ñëw mu ñew fekk ko amul nak lu ko jëkkëram du defal mu ne da nga ñak fayda sa goro yi ni mu lay def dangaa mënta tass dem mu ne ko loolu laay def mm. guddi gi jot mu tëddal jëkkër ji nako ko wacc ma jëkkër ji nako ko damaa doyal dama soomu te ki ko wacc ko jëkkëram bu da koy door bari koy yew bi mu paree ba jëkë ji ne ko kon loolu nga bëgg may na la ko tak ay bagage am di dem ci xarit bi di ko wax ne ko sama jëkkër wàcc na ma maa ngi dem mu dem fekk ku ku jëkër jank door ba yew ko mu ne ko ma ndax sama morom yëpp nga dem ci teen ba te bëgguma ñu xamné ne ma door ba yeew ma mu ne kon ki li ma waxon nekkut ci moom mm-hmm. wa ki ñi door ba yew ta man kenn dóoru ma ma man wax rek lañuy def man dal defatuma ko di dem teggi ay bagage am teg jëkkër ko li tanka tegg mu ne ko parce que ki ma ne ma tass lamay daj dajaguma mu xëy dem fekkante ak moom ca teen ba mu ne ko addiwu ah, yow demoo mu ne ko lañ la def li liñ lay def defaguñ la ko yow dañ lay dóor ba yeew la man kenn dóoru ma yeew amoon fula da ba tey di leen fàttali ni yéen a ngi seen émission nee naa la lépp loo xam ne actualité la ak lépp li nga xam ne nit dañ ko soxla ba ko waxtaanee fii lay xewee ci seen euh, télé bu mag bi di Saloum Actu ba tey ñu ngi ci thème bi muy néegu sëy nee naa la néegu sëy dafa ëmb lu bari mm-hmm. ma gis ci ñoo xam ne ah seen sëy sax ma tudd 3 mois dafa yaay nag euh, loo ci gis nag maanaam ñu ngi ci gis ñëpp ay millions lañ leen may ay millions am na ñoo xam ne bu nekkee sama papa def na naan indil ñeent ak trace soo ko indee ndax sama doom nag boo ko yoree nu ma neexul. dama jël ko moo tax à chaque fois boo demee danaa indil ñeent ak trace loolu bu mu leen tax nag ba ngeen ñëw na ma ñeent ak trace rek laa leen di jox. ku ñëw du ma ñëw nee parce que buumu jaam lañ lay wékk. ki la jox million buumu jaam lañ waaw Ousmane. waaye ki la jox lu ndaw. du la wékk buumu jaam jënd silence te bëggee ma ko noonu. nee naa la émission bi tey dafa war a neex parce que dañu fay gis célibataire gis yi marié ah man miy toog ci digg bi di célibataire ñu gis ne yéen yéen tool bi yëpp da ngeen koy jël jox ko jox ko jigéen ñi ne jigéen ñi ñoo mënatul jigéen ñi ñoo réglé tul te yéen tamit réglé wu leen ndax da takk jabar même pas une semaine nga koy joxaat gis naa ñoo xam ne dañoo takk jabar si jouru takk jabar ba ñuy doxaan jabaru xarit ba waaw kooku bu ñëwee sëy si ñaata fan la def du fa yàgg du fa yàgg kon tool bi Ousmane ci yéen la tey jii tamit waaw sëy sutura moo ko laal mhm. ak sac mhm. ak yooyu noonu mhm. mais da ngay gis koo xamante ne day dund jëkkëram loo xamante maanaam seen vie privée la mu génn tey jii di ko di ko yóbbu si mbedd te amaana sax ki nga koy nettali mu ngi dund ak jëkkëram loo xam ne bu la ko waxoon nga ne dégg. dëgg la. ko waxee xaroo la koy gënal sax. waaw te te jigéen góor ñi jigéen parce que dalay dalay dalay leer na boo duggoon ci restaurant ñu tegal la palaat nga lekk ba ñu ne la ñamal tegal la palaat bi juyal la ba mu fees nga lekk ba suur waaw boo paree jënd boo jëndee it moo nekk ci biir dëkk bi balaa góor di takk def loolu lu ne xam loolu lu ne. waaw bu la takkee lu lu lay jëriñ nag. dara du lay jëriñ dara moo tax tamit foofu tamit mën nañu faa dugg foofooy waral sëy di doon 3 mois wala sax dafa yegg Fatim soo doon wax tey jigéen ñi daal du ma leen mën a wax rek mooy ñu soppi jikko. Mm-hmm. parce que yàlla suñu borom bi xamuñ ban waxtu lay jëm. Mm-hmm. te ku jur doom bëgg nga cee keru. Mm-hmm. muy man muy sama morom a ci yem souvent nag dinaa gis nga sonn ci sëy. yàlla dimbale say doom du baax. waaye jàppal rek te xam ne dina baax. souvent nga gis ku fayee sëy yàlla ñëw dimbale ko may ko doom yu barke waaye lépp loxoy suñu boroom la waaye yàlla dafa ne man loo ma jaamut duma la ko jox gis nga ki jaamut noonu mu am doom yu baax yooyu bul ko masañee parce que jéggi siraat day yom te bu jéggi siraat amee ñun ñëpp dañ caa war a jàll kon jigéen bu nekk na ne ay suma xamu fekk c'est trop tard ay li ma dund amut trop tard yàlla dala ciy may ndam tey jii am na suñu maam yoo xam ne tey daj nañ lu ne ci néegu sëy bu ñu xoolee ci mel ni maa su jànq yaayi baay ñu xool tey maam jaaru bu so ana ñu tey dañ doon jongante parce que dañoo nekkoon ay wujju peccor ko ñii nekkoon ay wujju ci sama déggin ci sama ñoom yaay ñu ne maa su jànq baay jox na ko ndawal mu togg ba mu ñor bi mu ñëwee mu ne am na ku mu fàtte mu ne ko jaa asu am na ku ma fàtte de seppi ndawal ga ba mu mat dem jël ko jox ko kooku maa su jànq ñeex la naan wa suñu jamono gi ban jigen nga sañ a def lolu soko defé mo na ne la tax nga jël ko yobul mako sama mor. wa ndawal sax way tay amul Ousmane. ndawal kën du ko bokk. ku ko defoon kër gi. kër gi tass waaw. waaye ak xolam ak muñam ak dëggoom xamne ne mu def ni du pertement. dëgg la tey anamu mu ngi am dom duñu sukkal ak ramal moko jural lolu ana tass as maam maam bu so yow sa jëkër ñew fekk la fi kay jappal ma saket bi mu nga téye ba ba yalla ji taw ci sa kaw ba beur set te newo sa borom kër momo moko dama sonn yalla ji di taw nga may téyeloo sàkket baabu nga ma bëgg def lan moo tax nga may def lan moo may def loolu lii bu doon sama genre bu wax fees bi de mhm. xam ma koy xoolee ci sama dom bu sa jëkkër waxe nga jël sa baram ciap ciapal ko ba ci biir beut nga ne da nga bëgg am domi ba lolu mhm. loolu benn jigéen amewu ko dom ba bu njëkk ba jigen ñi dañ daan wax dana jur wàllu leg ban jigen xala bu jigen nga taxawatu mu ne dinaa jur wàllu wala dina jur ministre wala dina jur député sëy dañ koy jaamu. man man man sëy du mbub yal na la ko yàlla may. ci barke Cheikh Ahmed Tidiane ndax man mun naa sa maam Alaaji Maalik <laughs> sa baaraam <laughs> ma daal di dugal numéro ndax message yaa ngi dàkkante nee naa la ku bëgg a participer si émission bi mën nga woote si numéro bi di 78 143 94 94 78 143 nga daal di dugg bokk ci parce que li ñuy waxtaanee am na solo nee naa la man dinaa jur waale xam nga lu parce que damaa mën a muñ. jigéen day muñ man du ma tontu. sama yaay nag bu ko déggee de moom mi nga xam daf naa doon soo sëy jee sa sa sa ma ko ne ko di nga fa toog parce ne di ko waxee la mhm. des damay gis ku ne man de bëgg naa nangam bi bëgg naa naan wax mhm. jëf moo ko daal dëgg da ngay dem sëy ji sa goro bañ la ba du la mën a si supporter mhm. waaye man damay ne man bu ma góor gi bañu keneen ku ma bañ sama fuuda saa parce que ki ma fi indi kon mu ma teg fi ma war a toog dama fay toog ne déj li ma la war a defal nag dinaa la ko defal mais kenn du ma dépassé say rido la sa diggante ak sa jëkkër rido la koo ko ubbi lu dudug bu ma amee sama problème sama jëkkër nga génn ci mbedd mi dem ne tey la ma def waa ku góor ki tamit mu mel noonu nga mel ndax sëy boobu dina yàgg parce que sa jabar da ngeen a fanaan ci benn néeg bu guddee bu di def muy neex kenn du yëg kon bu ngeen amee problème kenn warut a mën a yëg waaye dañ ciy gis góor goo xam ne day am ak jabaram problème tuuti dem ci digg lalu yaayam sama jabar de lii la ma def laa la ma def bu fekkee dafa mel ni yaayu kooba moo war koo wax dëgg du ko wax dëgg de xam nga lu mu koy wax yaa ko xam nga ne baaxut ndax loolu ma lay def jekkut ci mu la koy def du ko wax ne ko muñal ndax kat bu ma la waxoon la ma dajeeg sa baay ba tollu fii mm-hmm. kon tey sëy bii du am te jigéen dañ koy yërëm jigéen dañ koy suturaal jigéen dañ koy yiir waaye da lay wax lu lay augmenté yow ba boo génnee da ngay gonfale ci sa jabar boo fekkee nag nga gonfale sa jabar gonfale sëy boobu du mën a neex parce que danaan ndax maa gën a réew xaar ma ko ne ko maa la gën a réew affaire bi dafa am fu muy taxawee fi muy taxawee mooy yar bi suñu yaay yi tamit nañ delloo di yaraat seen doom da nga ciy gis ko ci doomam sëy ñu fàtte ko toog toog ñaari fan ñett nga woo ko téléphone ne ko baa yaa ngi góorgóorlu baa yaa ngi def nàngam ah te ngaa góorgóorlu sëykat yombut mais léegi xam nga xale jigéen ñi ñu ñuy wax say morso ko beral boo ko demee ba gisoo loo xam wañal sànni dem jëndaat beneen morso. léeg-léeg nga jënd morso bu mu si bari. Mm-hmm. parce que man dafa ne boo amee buy sawlal da amaat buy dem gannaaw kër. waaw te te sëy bi ñu benn wax rek góor moom loo ko tax laa tas boo demee ci beneen waaye góor yaay xale la. da nga koy nax. Mm-hmm. munu ma ne du ma nax góor te du ma xaalis xaalisam te duma ko sëyal waaw boo ko lekkee ba mu set nga bàyyi ko fi da gis ku ko ñoo defar. Mhm. affaire bi ci ñun ñëpp verso la nag ñun ñëpp la mais li ci ëpp na góor moo ci ëpp ëppale parce que góor mooy kilifa góor ñi nañ delloo seen xel. yaay bi nga jur góor góor bi tax naan góor am na nag ba tey. non am na mais dafa manqué. Eh. am na am yi ngay wax ne ba tey boo demee fa ndox daan taa ma ne nga fekk fa tepp tepp. ah mais tepp tepp bi ñoo bëreetul. bañ koy wàññi moom. waaw benn par benn parce que góor boobu yow tey góor nan nga war a mën a matee kilifa li nga xam ne jigéen moom lay def yow góor nga koy def. waaye man man góor gi nga xam ne day rocc tuñ. di di di di di wat wat wat yoo. xam ne mooy sama goro boobu di Uba Tamba. Uh-huh. kenn du moom. dëgg dama ko may jabar bi xam sama doom ndax yow sa jabar fóotalu la balelu la paaselu la. Uh-huh. te teewul yaa ngi ko téye bu ñu waxee nga ne bàyyam baat ba ma waxoon moo tax ma téye ak yërmaande. yërmaande souvent moo tax góor ñu bari di téye seen jabar. léegi kooku est que dafa foo ko fekk mu ngi course gi ci loxo. muy noonu gis muy rocc mu nekk yaru diine yaru lislaam gor la nag gor la garmi la foo ko fekk dama ko am na ko sa jëkkër wàlliwu la. dëgg la mu ne ma ah ma ne ko góor góor guy téye course xale yi jamono gii. ba léegi ba léegi nii ngay toog fu la waxtu julli fekk nga jël sa course téye wér di ñaanal sa bopp ñaanal sa njaboot. amatul de. daf koy wa bu baax. di nga so jalla bi tek ko pot sa sa bob ba pare so ay dal talon li ma tuddee góor ñi daal talon ni so sol. ma ne xale yi nag yooyu la ñuy wër de yàllaat Ousmane gi jël kap wéy ca gannaaw jël tu tubay wàccee ci sou xala xala xala jël tu xottee ko. désiré ko ba mu baax nak ba pare loo ci tu tuuti ko ko dama mën yoré jax xam do doo jax légui nak suko su yow. Ah. da nga sama jantal man bi yoroo jantal man de jantal boy yoro ko de. jantal puso ko yor nak mom day jël di bënd rek. foo leen di yëngu bënd fa ku yor jantal man ku ne xalé top ko ndax tànkal la xale yi fu mu ne bëgg nañ om bëgg om boo xam ne boo leen doxaat sax ñu doxaat leen te eh, man nag wax dëgg yàlla am jëkkër ju ñaaw ba mel ni gong moo ma gën a moo ma gën a am jëkkër ju parce que jëkkër ju ñaaw nit ñi dañ ko li waajoo ko non nañ leen ñu fidèle rek non non nañ leen ñu fidèle xam nga fidèle moo gën lépp jigéen ñi sax fi mu ne nii dañoo bari macha allah tubaarkàlla te saa yoo xëy da ngay gis bu gën a jox ko da nga gis mànge boo xam ne daa damay wut xale bu may tànn sama bee jaaw ah. parce que xam nañ ne xale yi dañoo frees waaye xale yi frees wuñ de màgget tëb lu mu màgget màgget di set ngeen a jox te xale yi bu leen màgget yi yaree da gis koo xam ne bu njëkk ba dañ daan def amoon na kër laaw ba bu ñu daan def sombi dugub lañ doon togg jéggi la daan xelal dama ko dégg nag jamono jaleñ gii la ne ñu ne bu tàkkusaan jotee da daan togg sombi sombi bi dina ci def cuuraay gerte comme genre cuuraay gerte la mais dina am lépp ci bii mais maire bi da xale yi niñ daan sëy waaye léegi xale yi amatuñ lépp amatuñ ku leen xelal téléphone moo leen di xelal de dañ fi gis ku ndeyam jàngalu togg sax buy togg day jël téléphone bi. Mhm. activé loolu toog di xool. Mhm. waa wat. ngoog. wat wat waaw léegi Eva ko moytuwul dugg ci musiba. <laughs> léeg-léeg nga togg lu bokkut ak li sa jëkkër bokk na. parce que dañ ne góor bu excès chaque jour da koy won fenn. Mhm. bu tey boo defee sa ceebu jën ba ceebu jën ba mu ne ah tey bu dee ceebu jën bi ma lekk ndeex na subaa da ngaa war a def suppu kànja bu fatt faray ah man daa chaque jour daa soxna si bi may wax day tax bu génnee du xool leneen gi ngay gis góor ñi forforaatu nii ci mbedd ut seen benn appartement fee dañoo doylu wut ci seen biir néegi waaye tamit tamit parce que ah, ah. góor góor boo ko matee jënd mu ci seytaane déedéet amul fenn nag sama jabar mat na li ma doon hmm. day toog danga koy mat jinne mat ko seytaane dëgg la kon dañ ne bu la mat boo ko matee jinne mu wari seytaane danga koy mat jinne mat ko seytaane dafa am sama benn xarit bu ma mës a wax ne ma Fatima bu may wut damay wut jabar juy toj njàpp ma ko jabo ji mo na buy toj ñap Ousmane deg bay bàyyi si xel concentré wul Ousmane. jabar ji toj la wax de mara ne ko mu bëgg ba ma sama ñap koku dafa am ko xamne fay wut ku ko neer ku ko mat saytaane. legui luy toj ñap Fatima. luy toj ñap dafa bari. parce que sa jëkkeur bo xoolee ne tàkkusaan jot na ku ne xam 17 h 18 h mom goor ñi di bari nañ bis bu so gis goor guy liggéey ba 20 ah bari wu bu de ñuy liggéey bureau sax fu mu fu 17 h jotté wala fu jotté jotee ku ne. grand place wu ko yow li nek ci bir kër gi dang koy def ba mu mat bala wacc la la dara bi momu wex tal yalla na la yalla moy nak kër gu doy nga xamne sa njabot dara du la déranger waye nak li ñi ñaan yalla jigeen yi nga xamne bëgg nañ ko nak souvent duñ ko am de tax dañuy yoon njabot seen yoro duñ leen ko nangoo teen su ko defé nak nga bëgg am intime ci seen papa do ko mën day naqari ci sa xol parce que ki bëgg na ko jëkëram mais am ko ndax dañ ci gis goro bo xamne da ngay dem ba am doom jo xamne mesure vaccinale nga waru jël sa goro war ko jël fanaanoo ko ci biir néegam na la mënuma fanaanoo ko moom waaw ko ndax jë jëkkëram ndax dina am intime ndax di nga def loo xam ne sa doom dina ko gis léegi yow goro bi yow mi nga xam ne yàlla def na la yow yaa jur sa jëkkër mat na sëkk ba takk jabar war ngaa mën a jël sa sët di fanaanoon waaye léegi amatul de mënumaa ko moom ndax damaa téye bàyyam ba mu toll ni kon yow téelal sa bopp lañ lay jëkka tontu waaye léegi jigéen bi bu jëkkëram yegsee loolu mooy goroy sax mooy goroy kooba yi bu ñu génnee ci mbedd bi toj ruweew mhm. bu ñu duggee ci seen biir kër jël ànd yeeg furna yi teg ko ba mu booy teg leen ci biir leneen toog leen cappal foofu sa baaraam te mu ñëw <laughs> ba tey yéen seen émission ëttu Saloum nee naa fii lay xew lépp nag fii lañ koy waxtaanee eh, dinañ toog ak ay célibataire dinañ toog ak ay marié dinañ toog ak ay kilifa diine dinañ toog ak ay kilifa aada parce que bëri na lu nekk ci réew mi te nit ñi xamuñu ko te il faut nit ñi xam ko ba tax na numéro bàyyi a participer si 78 143 94 94 143 94 94 nga woote ci numéro bi dugg Fatim doo sàkk lu am solo. Seydou man waxtaan yow daf am na lu bëri ba xam ne. non damay parce que Ousmane dafa mel ni ba tax mu noppi bousez un mètre cent. Ousmane dafa ne yegg ci Ousmane. dominer nga ko man laaluma kenn damaa tibb ci góor ñi. tibb ci jigéen góor ñi moom. thème bi a taan. tor bi moom man góor ah, nga mais nem def souvent daf leen di dal. waaw léegi Ousmane. mais maanaam comme sëy moom. waaw comme muñ da koo lal. waaw muñ bi muñ bi Wow. ñaar ñëpp la. waaw waaw parce que ku góor gi bu yërëmee ku jigéen yiir ko aar ko ku jigéen ki tamit déggal yow da ngay wax ak sa da nga mën nga di wax ak sa jabar sa baat du jug sax mais bu lay ton mën wër mën wax ak mën wax ak ci discipline tey mais moom bu lay tontu mën wax ba bu mhm. eh, eh, <laughs> ya? ah. am du sax jot lool seen jikko la nessa ce pas. nga instant mën nga nekk di gaal loolu moom instant nga nekk di gaal mais amul àddina amul benn est-ce que bi sol ay pain sol am melokaan boo xam ne. ko gis ne ah. da nga naan kay est-ce que dina ma jëm bu yemee ci rocc tuñ sax jam day diw. jël laal xeesal def na pour pour def na lu ci gi. li ci suñu daan wax man damay wax ne si xasuñ zamaan lañ nekk sax parce que dama wax loolu buñ demee ba jigéen di tolloog góor li muy sol lay sol li muy diwu lay diwu da nga ciy gis góor boo xam ne jël na kawaram boppam sëqal ba xëcc kawar ga muy gudd jël sa ba ba muy gudd mm-hmm. nga ne yàlla yaa ngi nga daal di jël say tuñ rocc ba mu ne meng jël say tànk rocc jël say kanam rocc takk say jaara takk say chaîne waa léegi chaîne yooyu nga tak jaar yoy ngay tak kalkine woo ci takk Ousmane bal ma de djegal ma nak do tay tay thème bi moko dal dag may may ma jël appel bi parce que amna kuy dugg salam alaykum bokk allo allo oui salaamaaleykum. alaykum salaam kon ngeen def. ñoo ngi fi ñu ngi yalla bu baax baax. ñu ngi si baax. ñu si jàmm ba. baax tuh tudd ak foo ñu ah te ɗum kankoye soɓinotoɓe ndema mami seeɗa foñi foñi seetane allo allo wa salamu aleykum allo mbiɗa bay ɓuuri deglu télé bi deglu ñun ñu dégg bu ak fay wootee Touba Ndorong Touba Ndorong inshallah ñu ngi nuyu waa Touba Ndorong bu baax Hello. Halo. Halo, allo ah, ñu lay déglu. buñ buñ ah loolu voilà ñu ngi waxtaanee. ngi teg trop nga jot mooy doon benn. dëgg la. allo. dama leen laaj lan mooy doon thème bi la bi nga fi mu ngi mu ngi mu ngi yëngal jamono yi di di sëyee ci contrat contrat 3 mois koo ci takk tey même pas 3 mois mu loolu bi liggéey waaw néegu sëy yi baax na ci de ndax moom day mel néegu sëy yoo xamante ne daanaka tas tool. ak neexatul bu baax a baax. waaw am naa sama grand yoo xamante ne daanaka ba jigéen ba jigéen gis seen soxna yi kenn xamoo kañ la. waaw def soxna te bëgg naa ngeen jàpp loolu ñu bàyyi xale jigéen ñi nekk ànd ak seen soxna yi. ngeen ah. waaw kay kontaan nañ ci yow bu baax a am na solo bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax sëñ bi. merci beaucoup waaw di nuyu suñu mbokk moom mi nga xam ne mi ngi dëkk Touba Ndorong di wax ne ko dugub bi ñu ngi noonu macha allah li nga wax rafet naa parce que thème bi góor la ak jigéen rek verso rek lañ ko def ñun ñëpp la ñu ngi ci biir bàyyiwuñu kenn dañoo bëgg ñu delloosiwaat démb parce que nit ki dajale alalam ñëw andil la ko xamoo nu mu ko indee war nga koo mun a toog muñoon ko sëyal ko rek te yàlla rek tax surtout nag ñun jigéen ñi góor ñi am nañ ci part responsable mais jigéen ñi ñoo ci ëpp parce que jigéen mooy sàkku doom ju baax nee naa leen ñu ngi nuyu ñëpp di jaajëfal thème bi pour ñëpp la du pour kenn ñëpp a ngi ci biir waaye li ci ëpp jigéen ñi nag ñoo ko moom parce que jigéen ñi nga xam ne sëyu contrat la ñuy sëy ndax góor yoonam newu ci bàyyi bàyyi ñëpp la ndey ndeyu kenn la waaw xam nga lan jigéen ñi dinañ sëyee seen contrat xam nga lu tax parce que man yaa si boo may doxaan chaque jour nga yóbbu ma ci restaurant bu chic dugal ma ci oto boo xam ne macha allah ku ne ma présenté la parce que jigéen ñi loolu lañ bëgg wane wu. waaye gis nga kii mooy sama copain bi maa gis nga ni mu am gis nga lu mu mel nga gëmloo ma loolu yàlla def na booy ñëw ci man dëkk da ngay luye oto da ngay ñàkk xaalis pour yóbbu ma restaurant soo demee dina ma fa benn tacos bu 2500 wala bu euh, benn kaas bu jus bu 2000 ñu naan après ñu dem. ba heure kat jot nga may ah, ma adnaam ci biram ma dugg ba ci biir ndekete seen kër soobi la ñu dee waaw est ce que dinaa toog ci sëy boobu nga indi foofu neex na ma de parce que ah, tax fu nga indi foofu neex na ma Ousmane hmm. foofu dafa neex hmm. may ma tuuti ma ñëw Ousmane góor ku mu bëgg du ko estati góor ku mu bëgg dëgg du ko estati du ko def profil sama copain bi estati wu ma dafa yomb jigéen ñi nag loolu lañ umpalee ku la bëgg du la estati mukk ci àddina parce que du bëgg kenn teel laa xam. man de dama doon japp ne ki la bëgg mo lay estatu. déedéet wa di nga bëgg jigéen estatu ko sa moromu goor gis ko am amour ci mom dëgg la waaye na jigéen yi bàyyi xel sama far bi du estati duma wo appel du ngoko sëy du appel. Mhm. sëy dafa am lo xam vie privée la. dëgg la mais da ci gis jigéen bo xam daan moo toog di ko ñaxtu man estati wu ma profiluma waa lan mooy statut ak profil. ñun bu njëkk ba dañoo amoon téléphone téléphone amutoon bu njëkk ba bu njëkk ba message lañ amoon ñun bu ñu demee tey ba suñu réew di dox nañ ne yàlla jërëjëf. jërëjëf yàlla. ñun dañ am part de responsabilité boo xam ne tey jii dama ciy gis ku ci xuloog faram lan ngeen jot moom de du ma statut. maa ngi toog man boo boo xëyee toute la journée woowoo ma ma bala. appel mooy lan waa léegi bu fekkoon ne téléphone amul kon nan ngay def. su jamono jamono jooju moom bu fekkoon ne jamono jooju téléphone amul. Ah, waaw dañuy comprendre ne téléphone amul. mais fi mu ne jamono am. ba léegi da ko war a comprendre. H24. waaw ah. ñu ngi seen téléphone yi sëgg mais ki nga bëgg boo xëyee message ko bébé ci loo nekk ndax yaa ngi na nekk. ah Ousmane. Ousmane <laughs> Ousmane waxul de Ousmane waxul ko estati. non loolu dëgg la parce kii bi may déglu waaw téléphone moom ah, merci. yaa ngi ay copain. su ma neexee. ma jël sama téléphone bii essayé koo xamante pour xuuxal ko rek mën naa masqué ñeneen pour moom kese na ko gis ak ay xaritam. waaw te bu nga fekk ne ah man kat Ousmane mi bëgg na ma lan la te moom moo koy gis mais keneen du ko loolu mën na nekk xam ne wax na wax na wax wax fi mu wax noonu c'est intéressant. Ah, dégg nañu bàyyi essayé bi léegi nañu pepe parce que moom ñëpp a koy gis Ousmane <laughs> pepe ñëpp duñ ko gis. ma yëpp a ci yem nañ leen delloo seen bopp. de toute façon ba tey yéen a seen émission bi nga xam ne mooy ëttu Saloum tey ñuy waxtaanee néegu sëy nee naa néegu sëy bu mu bu mu ëmb moo bàyyi numéro téléphone bi nekk nii di 78 143 94 94 fii lay xewee ci seen euh, télé bi nga xam ne macha allah tarkala actualité actualité moo ci gaaw di Saloum Actu. nee naa la moo mujjee juddu. njëkk a baax dina mel ni ba lëg bi demoon matinité juri doom de télé bii. dañ ba lëg ba demee matinité di juri <laughs> نانا لا تلو دوكو گن في دا نان كو دبو بو مو موكو ني داليكو جير راتي كو مو نيت كو مانا ليك ليك كو مانتا ليك نا بال ني سونو تاي دم لو ريك لا باسكو نانا لن دو يوم سو نانا يوم دا نكاي جيل دال دي توخول تك كو فنين يوبو كو فنين واي نانا لن بيغي ار ايميسيون بي ني ديف ني ني تي هي ني باري ني جيجي ني سوبيكو باسكو مان دا فا بري لو فا وخ تخاو مكو وا بن بي موي كي لا بغ دولا اسيت دي ديت نانا بي موي توخ لين سين كيري waxtaan ak seen jëkkër yi. kat ba de nee na toog leen seen kër yi jam njoletaal nee na toog leen yi jamaanu waa dikk na ñëw leen seetaan waaye tamit góor ñi ne toog leen seen kër yi góor ñu baax ñu ñëw nañ mën leen a dugg takk waaw parce que boo gisee euh, tey da ngay nekk góor mu nekk ak yow ay at ba takk jot mu dem takk bala fa ñu ne euh, ko na la dañ ma ko force sama doomu jaay. force wuñ déedéet force wuñ ko def parce que ni ma lay wax boo duggee ci restaurant ñu jox la ceeb ne nga lekk ba suur nga la waaw boo bëggee jënd doo fa jëndee. parce que xam nga jëndee guubi di doo mës a jënd. Mhm. jigéen ñi amatuñ valeur jigéen boo ci gis tey di dama koy commencé ci man. Mhm. dangalal ba mu dang. Mhm. nga romb góor yow góor gi yow mu ngi lay tëddee am na góor ñoo xam ne dañu am faiblesse yaa ngi leen di rey. dangalal rek dangal rek seen xelañ ci yow. na jigéen ñi bàyyiwaat la ñu ne. tey sama classe gi bëgguñu sol lu yëre bu chèque. waa mais Ousmane d'accord ah, ak i góoram mais dafa am góor ñoo xam dañoo am góor ñi ñoo am faible léegi mhm. parce que am na ku ma masalaaj mu a ma couche acheté ba mu amee ba léegi loolu moo ciy gis ku xëy couche doomam ba bi so bu ma njëkk ma suñu maam yi morso lañ daan poussé mhm. bu ñu demee ba nga xam ne saw na ñu dindi bàyyi ko mu féexlu mais da ngay gis ku ci tayal fóot yëre doomam mhm. xëy couche doomam ba jant bi so mu ne ma faiblesse dafa am lu ma ëmb ci biir ndax souvent góor dafa war am fu mu war a taxawee. góor dafa foqale ni nga ko waxee resto nga dem lekk oto dañ koy luyee léegi. waaw da ngay dem fekk sa benn mi ngi ci parking ni Dakar sax loolu moo fa ne. Mhm. xëy lëmbe dëkk bi poussièreal fu nekk. Mhm. nga sañ sa sa benn costume def sa benn cravate wala nga dem fekk sa benn xarit na ko luyee ma dàll mu luyee la dàll luyee la mbubb ñëw romb jaay la mhm. nga yaakaar na waaja la fekk nekk du waaja de. gis nga ki ngay gis mu sol benn sagaram yor benn tisetam jël benn faaru mbaamum sol waaye toppal kooku kooku mooy waaja de mhm. am am du lañ koy wane mhm. am am dafa am ci lu mu nekk mhm. man bu ma amee di ko wane aw ma bu njëkk ba da daan gis ñu am xaalis bay bëgg a dee boo demee seen kër yi sàkket ngay gis li may wax sama mbokk yaay village mba euh, fii Ndofane fee Mali soo demee soo gisee ñu tabax dañuy tabax àndir ci bunt bi mais ay terrasse dañuy dugg ci biir boo duggee booy ñëw da nga naan waa ñii lañ ji boo duggee nga yëg sa bopp moo tax ma ne lakkat foofu la rawee nit ñi tey ñun Kaolack ku ci am tuuti million looy njëkk a def tabax sa étage. waaw bëgg gis leen di seen nit ña. Mhm. leneen nga bëgg a wax ak ni sa toll ci suuf di ko yuuxu. Mhm. bu subaa nga daal di amaat tuuti jënd sa oto du romb nit ñi di puchéeral boo xëyee nga war a dimbale li ñu lekk yow doo ko dem moonte li nga am tey di ko gaspiller ci mbedd mi boo duggee ci hôpitaux yi jox nit ñi ñu jël ko. fii am na fi booy yoo xam ne ñu ngi yor milliards yàggatul ñu ñàkk ko. Mm-hmm. parce que la ca war joxuñu ko yàlla mayewu dafay able. su la yàlla joxee bul dem seeti xale yi jigéen ñi di leen ko yóbbee ay auberge duggal ci hôpitaux yi nga jox leen ko nga dugg ci biir tribunal kay eh, campinal yi nga fekk ñu tëlee nga yëkkati jox leen ko. soo ko defee yàlla dala ciy bindal tiyaaba gis nga ñi am di def ci hôpital yi di def ci feneen ci daara yeeg yooyu suñu borom duñ leen musa neenal te lu ñu song dañ koy daan. waaw question bi nag dinaa ñëpp laa koy posé parce que góor bu jël ay millions def ci jigéen jigéen bi am na jigéen ñoo xam ne dañ lay dañ lay gëmloo ne ah ñoom kat mosuñu kii mosuñu mosuñu xam góor nga jël say millions jox ko jigéen. bu subaa ñu jëndi ndaw loolu. bu subaa ñu jëndi ndaw. loolu xam nga am na ñoo xam ne sax dinañ am xel dem jëndi mais am na ñoo xam ne dañuy bàyyi bu ci jour ba ñu ne la man kat dañ maa violé woon bu ma nekkee xale. te du dëgg. xol bu jeex boobu góor di àndal est-ce que ci luy waral góor di góor di fase jabar ci 3 mois. man dañ violé. Mm-hmm. bala ngaa ñëw di ma songu ngoro dama la ko war a wax. dëgg dëgg ah Ousmane yaa ngi ma bëgg a takk de waaye am lu ne ci man. Mm-hmm. verse mm-hmm. damay wax sama doom na leen verse dafa xew ba léegi de Dakar gi nga xam ne jigéen ñi ñoo ci xaan ñoo koy ñoo lu ko gëna bëgg fim mu ndax léegi ko ci wax mu ne la xay man. parewu maa jox góor sama bopp man damay toog man leen gis nga góor bëggul loolu fu muy naxee gu jigéen léeg mm. la nga gis góor gu ñëw nax la ba naan sa yuuri ba tëddee mais daf lay neex ndax woykat bi nee na diggante tànk ak ndax koo fa yebalu du fa dem dafa xatte man ku ma bëgg a tëdd ku ma bëgg a tëdd doo ma tëddee mm. parce que jigéen laa xam naa sama valeur góor bu lay bëggee day testé testé gi muy testé mooy day jéem a xool jigéen ñi dafu góor ñu dafuñu de te yaayu góor ñi dafuñu xam nañ fa ñuy teg seen tànk loolu taasu la ah. suñuy maama ko fi doon woon. la te taasu boobu taasu boobu ñoroon na ma torop da ngay way da ngay gis ku ñuy xewal sax di wax ndënd fajar baretu, amatul sax benn benn nga koy gis ndax lan xale yi ñoo topp seen bopp. da gis bu ndaw élève bu dugg ci biir asbes def planigam ñëw toog mel ni du moom yaayam du yëg baayam du yëg léegi ndax gisati nga jigéen boo ci gis soo ci hôpital li ci ëpp. damay faju pour am doom. waaw boobu dana ma ciy sant yàlla. ah allez-y. ndax sama rakk yi meluñ doon te ma mag yi meluñ doo ah kon sant mais comme li nga wax sànq rek maanaam am na am na góor am na kanam am na am na nu mu lay xoolee. Mhm. ba sañ laa proposé yenn kii. Mhm. loolu yaa ko may. Mhm. parce que yow boo amee sa ful am sa fayal wanoo ko kanamu ñàkk fayal. góorul góor góor ñemewul sax jógee fee ñëw naan jigéen di ko wax. déedéet yenn kii yi ñàkk fayal. ku loolu yaa koy may. te Ousmane tamit benn mi ngi ci am teel a may sa doom teel a may sa doom lu danger ngi noonu parce que xale bi doxut ndawam mooy waral bu nekkee sax ci biir néegu sëy dina génn dem foy parce que xale bi dafa war a dox ndawam ba yëg na dox na ndawam. xale yi léegi ni doxee ndaw. parce que précoce yi ñu jël la dugal la nga dem sëy même pas trois mois nga tas sëy ba lan lañ day bettee góor lañ lay bettee. jabar diw dafay caaxaar am jëkkër am. sëy dafa sensible sëy dafa garaaw ku ci dugal sa doom war nga ko mën a xoolaat jàngataat ko mhm. léegi nag su demee def la ñu naan moo doom ja ndey ja te yàlla xam na ne yaa melut noonu ñàkk gi ko tax li tax xale bi mel noonu mooy ñàkk gi mu ñàkk fo nañ bàyyi suñ doom yi tamit ñu dox seen intime mais intime dox ko dafa am mhm. ñun suñu maam yi buñ demaan doxi ba ñëw xam nga lu ñuy wax dugal ci biir ñu dugg ñu dindi sa silib xool nanga nga mel léegi ana kan nga ko sañ a def sa doom sañ nga nga wax sa doon na ko duggal ma ñew xol wala kañ dem ci gynécologue mu xol ta saga wala wala xasu la yaay luy lool bu ñëk ba da nga daan wax goor da lay na la dama la nopp nga ni yii dem suma démé sama yaay daf may wala yi dee ñoo taxaw fi légui da ngay taxaw ci bop koñ nga seen xala bu jigéen mi ngi taxaw ak faram bu suba nga taxawat fe seen ko ram la ñuy def de buntu kër gi xeet nako ma nga ca bop koñ nga nga romu papa diw mu ne ki mo xali bi mo bon doomu diw mu ne waa te yaayam boo ko ba ci bir ku set la ku bax la boko jexé ba baayam imam lay do souvent dom day yak ndayam deug la moo tax wax rek na xali delu ci wat sen bop ba tay li nga wax mooy fu fi ndox don ta bo demé fek fa dem dem moy yoon ba tay may wax ak yaw xam nga état bi ku mo mën jëkkal jëkkër mu sëy waye buma taxawé góor ci mbedd bi ma ngi xalaat sama mag ji xaadim fan la xaadim wala a tëlle ay man xaadim mo fekke fi lan la moy yoon daw dugg ci biir kër gi wala ay su ma defee nii ëllëg bu ma xa bu ko xaadim yëgee nan laay def léegi loolu ba tey ba tey mu ngi am waaye dafa bëreetul mooy li ñuy wax parce que tamit euh, quoi qu'on puisse xale yi dafa am yar bi manqué ci ñëw ñoom parce que tey boo juddoo sa yaay di sëy juddu di sëy màgg di sëy ba doy ni mu doy sëy ba am la ci ba tey mu ngi toog di sëy kenn mësul dégg na fay na kenn mësul dégg na dem na ndaba fay waaw moo dem ma yow nga dugg ci sëy ñetti weer ñu nga génn ci boobaa di nga xastul sa yaay loolu nga wax noonu dafa dafa dafa bari. Mm. bu njëkk ma sañoo def dara ndax say doomu baay. yàlla boo am doomu baay da ngay bëgg lu doomu baay bi def nga def lu gën a piir dëgg la man dama naan bu ma demee ba ma samay doomu baay laay séentu soit nag sama famille yaay léeg ñu jiñ nit lu bon te jegewu ko. te souvent ki koy jiñ boo ko jeexee ba ci ba mbon baa ngi ci wetam. àddina bii nii li fi nekk dafa bari de. nga seen nit sañ sa lu rafet gàddu saagam amoo lenn looy teg ci moom mooy yow doomu diw dafa baax baaxul guddi baaxul bëccëg. moonte de boo ko jeexee ba ci mbaax rek la ëmb ci xolam ba. parce que ragal na lu muy def yaayam dégg ko ragal na lu muy def magam dégg ko wala ragal na lu muy def samay doomu baay. man dama dëkk koo xam ne mu ne faatu souvent lu may ëpp di ragal a def samay doomu baay bëgg naa sigil sama yaay ndax samay doomu baay. waaw kooku xam nga am na lu muy ragal kooku bañ na ay doomu baayam yàpp ko te góor la de boo ko fekkee mu toog moom sël mu ne ma mënumaa dem bàyyi sama yaay kon man su ma fi ñàkkee fayda ba def loo xam ne lu naka su noonu bañ tey jii ñu dugal ma kaso sama yaay xaroon dina ci taxaw parce que ay nawleem la nekkal ci biir kër gi nawle moo moom lañ daan dox ñu bari dañ daan sóoraale waaye léegi jamono gii damay dégg waaraatekat yi wax naan kuy sóoraale dooy dem ankay nit da ngay sóoraale mën a dem léeg nga dégg ko ko wax weddi loolu waaye man dama ko weddi man damaa bëgg a dem damay sóoraale sama yaay sóoraale samay doom baay sóoraale ëllëg ki ma war a jur mm. jigéen tànk yaa ngi sóoraale ki nga war a jur ëllëg bu ñëwee ñu ne ko moo nii la man a mel ndax ndayam te baat boobu ba ngay jur sët sëtaat dañ koy toog di ko nettali nañ leen defaraat jikko yi te ñu respecté waat suñu bopp man du ma ne góor ñi parce que góor tamit am na benn part de responsable mënumaa xëy di dem fajar yor sama vélo bii di ko ñàkkante ci mbedd mi dajale indi takk jabar ta jabar ji ëpp ma kàddu ci kër gi man ta nekk dañ leen waxante dëgg. boo loolu boo ko seetee ba ci biir mooy ñi nga xam ne comme li ma leen wax bi ñu takkee seen jabar la leen yomb tey koy xool ci téléphone rek booy cotiser comme sama genre tey yaa ngi dañuy 1000 francs suba dajale ba mu mat diggu téléphone boo ko jëndee doo ko bàyyi mu wadd di bu baax parce que da xam ne lii balaa ma koo am dama cee waaye bu fekkee ne da nga téléphone da nga toog ñu may la waaye buy wadd sax doo ko capté parce que sëy sëy naxante la ànd naxante la ñuy ànd. Mm-hmm. ku jigéen ki mu ngi nax ku góor ku góor ki mu ngi nax ku jigéen ki. waaye est-ce que du yar yar góor. waaye déggoo ma ne la góor dara nekkul ci moom. waaw mais buñ ko yaree tey boo yoree sa doom ju góor yar ko ci kër gi wan ko yaay kilifa kër gi donte xale nga yaay caatu yaay caat bu góor ci kër gi waaye yaay kilifa kër gi teel ko jox ay responsabilité teel ko def kilifa. da koy dimbale bu yoree jabaram dina ko téye. waaw mooy li ma la mooy ndimbal gi. Mm-hmm. parce que kii sama yaay la. dama kaa fekk mu nekk ci ay conditions yu leer. ñu yar ko fi mu ko war a yar sama papa fekk ko bëgg ko. kon man tànk yi sama baay jaaroon ci tànk yooyu laa war a jaar. Mm. des fois doom rey raw baayam. Mm. doom des fois doom dafay raw baayam ndax lan mu koy raw sama papa dama ko fekk muy def lu baax ba àdduna bi yëpp di ko tagg. man damay ñëw doubler sama papa. doom ji nar a baax de ma ne la déggoo léegi ci sama biir wax yaay léeg-léeg mu sonn ci néegu sëy. ñëw yor doom yu gën a yées léeg nga gis ku jël sa sëy def ko këyitu moo sa fobeereem di ko fobeeree nu ko neex te tey moom la yàlla di jox ay doom yu baax. sëy bi affaire bi sens la mais mën na baax fii mais est-ce fa ñu jëm dana baax. nañu sóoraale fii mën na baax mais fa ñu jëm du baax tey dañ ci gis koo xam ne ndeyam taxawaalukat la woon yor taraanga gu dul jeex te boo xoolee ba ci biir ñu ñàkk ñi rek la ñuy wax ay nit guddi lañ de. ñi nga xam ne amuñu dara. ñooñu rek la ñuy wax ay nit guddi lañ mmh. mais ñi am ñi dañ laa ne ñooñu ñooy noobuli ñooñu ñooy tabax ba mu ne fomm ca kaw buñ nekkoon nitu guddi sax duñ leen waxal nitu guddi lañ de ñooy nit ñu baax ñi la ñuy wax léeg nga gis xale bu daw dugg kër goo xam ne ni amuñu dara xam nga ne yaa dugg kër nangam yi yow noo wuti jàpp sa doom dóor xale bi day jël loolu wala def ko ci xolam ba ba muy màgg moom la leen di loolu yëpp ci yar la loolu yëpp tamit ci ànd bu nekkul dëgg la parce que nit ki mënu leen bokk benn rii ay nit dinañ dëkk gis sen ba, yi maile, bëggante ñu may leen mm-hmm. waye da ngay gis tay ji nga dekk ak nit so doom gis ko bëgg ko nga nako bu ci dugg amu dara wala kaana yi wala nga nako nitu guddi yi nga leen di doy nga dem ba jëm jamono yalla soppi nga bëgg sa doom duggati est-ce dina man bu dé man la do dugg wa bu dé man do dugg dé nañ leen xel adina fi kenn amu yalla rek mo am te ku baax le tamit na nga ne yalla mm-hmm. ku bon na nga ne yalla bu la yàlla mayee doom mu bon santal suñu borom bi bu baax di jàpp du jullit fa ñaar mu delloo si waat ci sago waaye da nga ciy gis ku ci yow doom bu bon jël bale man maa la ba àddina ak àllaaxira bugguma ñu tasee yow baaxoo yàlla bu mu nekk jigéen nag ñëw ëmb indil la loolu moo gën a méttiiti nag nga jël sa doom mbubb nga jënd daal la nga jënd man damay wax samay doom na leen lu ngeen nara a uti ci góor bàyyi leen ma uti ko ndax damaa soxla seen verse ñu ne ma ah man ko lu ngeen nar a uti ci góor bàyyi leen ma dem uti ko ñëw jox leen ko ndax dama am lu ma soxla ci yéen. Mhm. te doom da nga koy wan na ko lii mooy àddina. da ngay woo sa doom war ngay toog deux jours ñaari fan ñett nga ne ko kaay leen mu ñëw ah man fa ñoon ngeen defee nii kat nii ak nii ak nii man dama mës a wax sama doom na leen am am yàlla moo koy joxe su ma dee bu leen yàlla mayee bu leen xeeb dara li ngeen ma war a jox te fekk fekkuma ma leen ko dajale ngeen jël ko yóbbul ma ko ci hôpital yi. est-ce amna ñukoy def. bari wul Dom, dang koy won nako kay bul ko ignorer wala nga bayiko mu dem des fois tamit ñu jékku la ndax sa non da lay bañ ba xamna yow da nga wara jëriñu mu dem ci mara ba yakal la ba yow do jëriñu. surtout lolu nañ leen bayyi suñu xel dom yi ngeen gis ñu nekk ci mbedd yi bonuñu seeni badjan man nañ leen ko def. Sen, sen, jam kon tay ku bëggoon sa papa ñu ne moom ko waxon nañ ko mu dem takki diw mu bëgg sey bobu na lu ko koy wax yàqal ko njabotam ne ko doom duñu bax bu ko dañu ne ko waxon nañ ko ko de ndax neewon nañ ko mu tak diw loolu mi ngi sutu suñu rew mi mel tay sa doom ba bajjan sa gi nga xamne mo sa bay ño bokku nday ak bay dañuy ñëw fekk sa yaay sey ba de mu xamne ki suma ko baye doomi tek mu dem ci serigne ma dama yàqal leen bu ñu baax waaye léegi suñu boné yow sa bop lañ bonal parce que yow lañ wara dimbalé ëlëk dimbale ëllëg waaw waaw xam nga adina mom nit di nga yàq ba yàq. ba yàq sa bopp ba yàq sa bopp te doo xam. merci euh, parce que boo demee yàq sa doomu mag wala yàq sa doomu rak wala yàq sa mbokk sa bopp nga yàq ndax balaa defar kenn sa ceeb tooy ba pare. ba tey di fàttali ne yéen seen émission ëttu Saloum waaye nag temps bi dañoo xaw a dab waxtu bi dab nañu wax naa nee naa la lu duuf ci nag bi yëpp xajul ci banaan li te liñ fi war a waxtaanee non di ngeen ci ñëw ak ñun jeudi je pense bien di ngeen ci ñëw ak ñun waaye nag ñun tamit asalaamaaleykum mbokk asalaamaaleykum kooku oh kooku dem na. daa daal di kooku dem na waaye ba tey di leen wax ne yéen seen émission ëttu Saloum lépp li nga xam ne waxtaan la fii lañ koy waxtaanee ci ci ci ci Saloum Actu télé bi nga xam ne nee naa la moo mujjee génn waaye njëkk a xew. waaw tànkaala macha allah ba tax na leen di bàyyi ñu tàggatoo suba dañu ñëwaat ci thème bi. dara du ñu raw suba suba faaw ñu ñëwaat ci thème bi waxtaanee ko parce que li ne ci biir lépp mënuñ koo wax. te am na ñoo xam ne dañoo daw dër parce que ba ñu leen tuddalee seen xotteeku leen ba tey non waxatuñu. non Ousmane moom foogeewu ma ko woon loolu. non Ousmane dafa gaaw a ñëw Ousmane xoolal sëriñ bi raw ndoo moom euh, euh, lu ne yàq na ma tey di ngeen xam ne lépp dëgg la fii dinaa leen ma gis ma ñu toog rek faatim tamit am ko sama wet damay neex rek Ousmane dama lay bàyyi nga tàggatoo. waaw di nuyuwaat mbokk waaw comme ni ma ko waxee sànq rek maanaam sëy moom sutura la. Mhm. waaw ku góor ki tamit muñal ko jigéen. dëgg la xam ni jigéen moom matul. Mhm. li sama maam faral di ni seen wéy sëggee noonu seen xeli sëggee. Mhm. après loolu boo ko boo ko appliqué rek doo sonn. dëgg la waaw ñu gën leen di gën leen di muñal daal. ku jigéen ki tamit déggal borom këram. mais yow tey bu sa borom kër waxee nga waxee benn nga wax fukk bu wër. ku ci mbedd ma jot ñu ci war a jot jot ñu ci a jot jot loolu tamit neexut a supporté. Mm. dëgg la waaw. waa samay mbokk nag ci waaw nuyu sama yaay sama papa. di leen jaajëfal yéen ñi bu baax a baax. di leen wax ñu dund cent a sans ordonnance. macha allah parce que xam naa ne góor yaay la. waaw góor yaay la ba léegi moom la fiy wax bu ñu maa ngi nuyu surtout sama yaay moom yaay ji moom. xam naa gis nga ko mais xam naa góor yaay la. mais ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla guddal fan may ko wér ak wérle. yàlla may ko mu dund cent ans sans waaw kon ni ngeen koy rek. yaa te suba tamit dama lay amaat. waaw Fatick yaay doon sama chronique yow faaw ngay bëgg di toog sama émission. parce que ah, incha allah lépp dina baax. Ah. waaw bu ñu nuyoo ba pare santaat ñeel nañu. Mm-hmm. di wax ne lépp luñ fi wax de duppawut ak suñu kàddu ñu ngi koy jégalu ngeen jéggal ñu. ba xam ne wax matewut diw sant tamit sama waajur bu baax a baax moom rek laa fi dese muy sama yaay bu baax salikone googu maa ngi koy nuyu di ko wax ne ko dundal cent ans sans du nuyu képp koo xam ne yow yaa ngi seetaan di la bëggee di la safoo du nuyu sama njëkkee luy baax yooyu joojo njaay du ma ko fàtte fu mu toll daf may ñaax ci sama doom parce que tàggoo na ak seen càmmiñ mais bàyyiwuma benn yoon di ko wax ne ko yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér ak wér le doomam jooju mu am di maman Cissé mu yaakaar ci moom lépp lu mu ci yaakaar yàlla na ko ko yàlla defal parce nit lëg bu lekkee aloom na ko gërëme coy man damay xam ne joojo bu ñëpp meloon ni moom duma ma jooy di nuyu moom i rakkam yooyu ak magam Khady Touré maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm bu baax parce que ñoom it seetaanuñ ma benn yoon lu ma nekk ña nga ca te tàggoon ak seen càmmiñ bu leen nekkoon ñu seetaan ma mais lu may dugg dañ may ñëw jàppale bàyyiwuñ ma benn yoon Khady di ko jaay jëfal bu baax baax di ko wax na ko njabootam gi lépp lu mu ci séntu yàlla na ko yàlla def di wax na leen nuyu nañ leen jaay jëfal nañ leen bu baax a baax di nuyu sama doom jigéen yi di leen jaay jëfal bu baax a baax a baax xam nga rek temps moo gàtt waye liñ bëgg wax yépp xaju fi ta ta ta ta das na ci émission bi di ñëw ñun ka lu ñu wax suma ma ñu fa Fatou Sow maamu su ma yeggee xalaat du ma sama am nag mare may ñoo sama am nag sa yaay rek bu da nga wax ñu eh daa mare dafa jox maam ju guro waaw yàlla guddal adi guddal guddal fan wéral cëri macha ya, ko ci kanam kanam kanam moom tamit vraiment ku baax la dëgg la kontaan nañ kontaan ñu daal di nuyu borom télé bi la waaw kenn du moom loo ko nuyul waaw parce que dañ ne nee nit ki noo mën a mel rek nit a la ko def. dëgg la waaye ngàcce ngalaama moom it ndax fi mu teg ay ndaw. Mhm. di leen wax ne leen waxtaan leen li ci kër yi. Mhm. waxtaan leen li ci néeg waxtaan leen li ci xol yi moom kenn du moom. ndax moom ngàcce ngalaama dañ koy bàyyi ak yàlla ak yónni beeg Mawlana Cheikh Ibrahima ak sa maam El Hadj Malick si. lépp lu mu sumb rek yàlla ko daan te nee naa ko lii nga sombi danga nga raw say morom. ci barki Cheikh Mati Diagne nee naa leen émission yu bees tàq waxtaan yu leer nañ. Eh. képp ku ko bëgg taxawal fii xaar ay image yu leer nañ nag. fii lay xewee loo soxla wooñ dëgg la ay ndaw yu xarañ ñoo fi nekk. Uh-huh. image yu leer nañ waxtu boo soxlaatee sa sa waay nañ noppi cat dafa gaaw nañ parce que sama xol bi dafa <laughs> fees lépp fii lay xewee Saloum ak seen émission bi nga xam ne mooy ëttu Saloum ñu fas yéene cee waxtaan lépp li nga xam ne soxal na leen waaye lépp li nga xam ne tamit yitteel na leen su ngeen gisee sànq tey may wax naan nii sama ongle yi seen xel war naa dem ni ah damaa def ongle. kon bu baax te euh, top création moo fi génn defal ma ay ongle yu baax yi. macha allah nit ñoo xam ne bi may bi may bi may bi ñàkk doon dara donte doonu ma dara ba tey waaye bi may ñàkk doon dara lañ ma topp ba tey mooy taf création ongle. macha allah mu nekk sama karam moo ko def. looloo neex euh, nee ko nag ñun ñëpp a ci bokk nag. ak Diop Couture nag suñu caméraman yi suñu réalisateurs yi fàttewuñu leen suñu doom yi baax yi. xoolal Diop Couture. sol moo ko jaw macha allah lu ma sol rek Diop Couture a ko ñaw ba tax na maa ngi leen di remercier di wax ne lépp fii lay xewee li ngeen ma doon defal Ndofane ba fay nekk di leen ma ko yónnee Kaolack di leen may solal ongul si jotee taf nga jógee Ndofane ñëw ba Kaolack dafa ma ay ongul waaw lépp ci wayaat bi la ngeen waaw nuyu nañ leen baax a baax a baax di leen dox dig daje suba insha allah à partir de midi fii lay xewee ñu yeggali thème bi nag thème bi la ñu yeggal ah, même heure même rek bu kenn toxal dara ak Fatim <laughs> Ousmane suba dama leen di leer <laughs> que yow merci beaucoup à demain insha allah ok